ma waxtaanee donc ci discours am bi ci discours am bi nag wax na point yu am solo yoo xamante ne nii amal na njëriñ Sénégal amal na njëriñ bitim Sénégal maanaam Afrique waaye comme que kat yi xataraayukat yi ñoom li leen ci ëppal importance mooy waxtaan ci mbirum góor jigéen bi ndax ñoom dañoo ñàkk argument te ni ma koy waxee rek journaliste yu bëri chroniqueur yu bëri amatuñu seen place ci télé yi amatuñu seen place ci rajo yi parce que ñoom seen waxtaan yëpp luñ ko jàppee. Ousmane Sonko jàpp nañ ko Ousmane Sonko wax na lii Ousmane Sonko Adji Sarr loolu rek moo nekkoon seen point de vue loolu rek moo nekkoon seen euh, fu mun a jàpp ba argumenté parce que euh, yàlla da na a xañ xam-xam yàlla xañ leen xel bu xel bu xarañ boo xam ne dañuy mën a segg seggantal ñeneen ñi nag vraiment am nañ xam-xam mais bon xataraayu comme disent les enfants bon xataraayu parce que seen xol yu ñoo ñuul ku ba ndogalu yàlla mënuñ kaa nangu tey Ousmane Sonko le président li yàlla def ci moom nangu ko dong moo fi sës parce que nangu da yombal duma avant loolu ma leen di ñaan dugal naa sama lien chaîne YouTube les flowers ngeen abonné ci chaîne YouTube bi parce que dama bëgg commencer def ay vidéo ci chaîne YouTube bi wax naa ko TikTok waxaat naa ko Facebook. donc ñu ne le président Ousmane Sonko dafa aborder le point sur l'homosexualité première chose bi dof boobu ñuy wax xaw Ahmed Ndoye Euh, tuddut homosexualité il appelle l'homosexualité le phénomène phénomène la koy wax mais Ameth da ngay laajte lan mooy phénomène dangay ngay tojal nit ñi lan mooy phénomène soo ko tojee ba pare daañ xam ndax war na ko wax wala waru ko wax déjà nit lépp lu mu siidee wax mun na wax phénomène siidee mooy loo seexloo wax muy benn ñaareel bi lan mooy phénomène phénomène dañ la naan mbir bu nekk la boo xamante nii dafa complexe maanaam dafa compliqué ba. vraiment ay scientifique war nañoo toog daf ci gëstu loolu mën na nekk phénomène ñu ne la phénomène mën na nekk loo xamante ne nii rek ab mbir la boo xamante ne nii dafa jékkee-jékki rek nekk ci pénc mi bi mu nekkee ci pénc mi dafa dafa dafa bett nit ñi ni mu nekkee ci pénc mi nga xam ne dañ koy waxtaanee fu ñuy toog dañ koy waxtaanee ci ñaari définition yooyu ma joxale ci phénomène ndax homosexualité da cee bokkul si parce que benn l'homosexualité mun na def étude scientifique mun na def l'objet d'une étude scientifique ba xam ndax feebar la lan moo mën a xiir jigéen nga ne man bëgguma góor jigéen laa bëgg lan moo mën a xiir góor nga ne man bëgguma jigéen góor laa bëgg mun nañ ci def une étude scientifique ba xam ndax problème kii la formation la problème mu topp sa bakkan la problème lu bon la problème mu problème mu lan la suñu la leen ne phénomène mooy mbir moo xamante ni dafa bett nit ñi. ba nit ñi di ci waxtaanee ndax homosexualité nekk mbir moo xam ne dafa jékki-jékki rek débat bi imposé wu fu ñuy wax wax ne homosexualité pourquoi parce que su nekkee ni homosexualité existe na depuis très longtemps lan moo indi affaire bi ñëw surprendre nit ñi avec une telle violence mooy dafa am réew yoo xamante ne nii dañu génne homosexualité bu ñu considéré woon comme une maladie teg ko comme un fait naturel yemuñu teg ko ci un fait naturel am ay borom doole yoo xam ne ñoom ñoo ko jàpp ne homosexualité bu kat dañoo war a pousser tous les peuples ñu accepté ko kon mu nekk benn fait boo xamante ne dafa surprendre nit ñi parce que homosexualité mës naa exister mais défense ko bëgg a ko bëggee défendre loolu moo jékki-jékki surprendre nit ñi ñëpp di ci wax. ñu ne le président Ousmane Sonko lan lañ ko mën a xarabee lan lañ ko mën a critiquer mooy dafa ne l'homosexualité est tolérée mais n'est pas acceptée. ci l'homosexualité est tolérée pourquoi parce que dafa ne tamit l'homosexualité lu fi nekk la lu ñu xam la lan mooy wane ne lu fi nekk la lu ñu xam la mooy homosexualité sénégalais yi bañ nañ ba wutal nañ ko ñetti tour ci suñuy jàng nasaraan lu ñuy wax les différents registres de langue mooy le langage familier le langage courant et le langage soutenu pour ñi ko xamul ñu jéem a xool nan lañ koy tekkee même su nekkee dina jafe sax ci jàngum nasaraan comme dañu ne sooy wax par rapport ak ki ngay waxal am nga cër booy utiliser am nga nooy def ba wax ji gën a ormawu gën a baax gën a neex a dégg plus nag ngay def effort pour wax ji gën a ormawu gën a neex gën a neex a dégg yaa ci langage soutenu plus ngay fexe nag na wax ji am orma rek te bu bu mu am benn faute boobu yaa ci langage courant plus ni ngay waxee nag da koy waxee de manière très libre nu mu la neexee nu mu la safee boobu yaa langage familier ñetti façon langage yooyu moo am ñetti façon langage yooyu. dafa am ci nasaraan am ci olof le langage courant le langage familier et le langage soutenu le langage familier bi nañ moo ci gën a tuuti tey moo tax lu mel ni euh, nu mu mën a expliquer ma joxe benn exemple tey nit ki mun na ne man damay saw donc man damay saw lim tekki la tekk mais keneen day ñëw ne man damay tuur ndox mais keneen mun na ñëw ne damaa soxla sama bopp damay joxoñ man nit mus na ma wax damaa bëgg a joxoñ ma ne ko luy loolu parce que xaw ko mais après la ma expliquer ne damaa bëgg saw donc gis ñett yooyu kon langage yi wute nañ tey mun nañ ne kii nelaw na kii dee na kii faatu na kii wuy ji na boromam kii làqu na kii dellu na na kii nii kii nii kii nii loolu yëpp mu ngi tekki ne rek kii dee na mais par rapport ak ki dee wala par rapport ak kiy wax wala par rapport ak ki ñuy waxal dinañ xool dinañ koy mën a seggee ak seggaat kon ñetti langage yooyu dafa am. fii ci senegal góor jigéen dañ ko wutal ñetti langage yooyu muy courant muy familier muy soutenu. le langage familier bi nga xamante ne nii nu ñu saf lañ koy waxee dañu naan kii puuskatu puub la ngeen jéggal ma ci wax ji mais sooy wax pour nit ñi nànd foog nga waxee ko ni mu mën a nekkee dañuy naan kii puuskatu puub la. loolu c'est le langage familier su la nee waxal wax ko ci langage courant da nga naan kii góor jigéen la su la wax ko ci langage soutenu da nga naan kii borom ñaari tur yi la kon léegi. baat bi nga xamante ne nii ñun sénégalais yi wutal nañ ko les différents langages wutal ko le langage familier le langage courant le langage soutenu nan lañ mën a naa fekkee ba ne existé wul wala nan lañ mën a naa fekkee ba ne Sénégal xamu ko muy benn tey soo jëlee baat bi nga xamante ne nii mooy baat bi ñuy wax euthanasie mooy comme nit ku feebar ba sonn ñu jox ko ay substance ay garab yoo xam ne da kay da kay rey loolu baat boo xamante ne nii la sénégalais xamuñu ko. tax euthanasie tey soo ñëwoon nga ne sénégalais définir ma lan mooy euthanasie da koy mën a définir mais du la jox baat bu méngoog moom mën na la ne rek comme ni ma waxee nii mooy nit ku feebar ba sonn ñu doggali ko ngir ngir euh, abréger ses souffrances maanaam dagg souffrance am ngir mu noppalu ko noonu lañ la ko mën a waxee parce que euthanasie sénégalais xamu ko tekkiwul. doggali parce que doggali souvent Sénégal suñ koy wax kii mën na doggali nit benn aspect bu péjoratif la benn aspect bu soxor la maanaam nit euh, nga jàpp nit ki xas ko ba mu ràpp nga ñëw waxaat ko leneen loo xam ne daf ko doggal daf ko abaat wala xeex am kii ñu dóor ko deewagul nga ñëw yenn ko dara mu dee ñu ne moo ko doggali donc doggali la moo doggali utiliser au sens péjoratif mooy nga nga terminé benn liggéey bu bon ba gën kaa rey gën kaa toroxal gën kaa sonal. mais euthanasie ci boppam bi nga xamante nii mooy tekki nit ku feebar ba sonn nga daal di ko jox ay garab yoo xamante ne nii da koy rey mais rey boobu métit bi du yegg nii ni nga ko naroon a bàyyee feebaram bi di ko gën di sonnal di ko gën di sonnal te nga xam ne quoi qu'il en soit day dee. léegi kon euthanasie boobu suñ la ne woon définir ko ci olof wala joxel baat bu koy tekkal ci olof doo ko mën a joxee lépp lu dëkk xamul mun na ko tekki entre tekki ak joxe baat bu dëddoog moom dafa wutale. muy benn ñu ne góor jigéen toléré nañ ko waa fii Sénégal kan moo mun a taxaw ne góor jigéen toléré wuñ ko parce que suñuy wax dara réew toléré na ko wala toléré wuñ ko duñ nekk benn par benn mais dañuy xool lu gën a bëri ci waa dëkk boobu ban conception lañ ci am. tey fii Sénégal ñi nga xamante ne nii waa Sénégal yi d'accord nañ ne góor jigéen lañ dañuy live ñeneen ñoo xam ne duñu góor jigéen bugguñu seen doom nekk góor jigéen bugguñu seen mbokk nekk góor jigéen dañuy dem di déglu laay yu bëri ca kontaan di ci bëggee fii ci Sénégal nit day nekk góor jigéen di wax dara loo xam ne dalay reetaanloo te loo accepté wul du la mën a reetaanloo déjà donc am nañ différence am nañ euh, warugalu daf différence entre qu'est-ce que c'est accepter une chose ou bien un phénomène et qu'est-ce que c'est tolérer un phénomène accepter mooy li nga xam ne nii danga ko nangu da nga ci bind da danga ci joxe sa approbation mën nga taxaw di ko defendre yow bëgg nga ko doon ne bëgg nga say ay nit doon ko tolérer nag mooy loo xamante ni yow d'accordoo ci àndoo ci mais li nekk la mu ngi tegu euh, da nga cee da nga màndu wala doo ci nekk daal da ca kii doo ci nekk daal di ca rayante mais Sénégal looloo fi am am na ci ñoo xamante ne nii góor jigéen ray lañ ci xam am na ci ñoo xamante ne nii góor jigéen duñu jege duñu laal duñu kii mais sénégalais est-ce que ñun mun nañu toog fóotum biir nekk ñu ne góor jigéen ñi nga xam ne am nañ senegal ba nit ñi xam leen wala ñu nekk ay sénégalais génn beneen réew nekkuñu di def live ay sénégalais toog di leen déglu. loolu nag pour mu gën a neex a dégg ci xel foog ñu définir lan mooy góor jigéen. ñun nan lañ déggee góor jigéen sénégalais lan la doon wax góor jigéen parce que sànq bu may définir phénomène bu président Ousmane Sonko waxee phénomène moo tax ma leen Ousmane Sonko dafa dégg dañ leen ne mbir bu ñëw la wala bu fi nekk boo xamante ne ni dafa am effet surprise effet de surprise maanaam lu bette la parce que ñun sénégalais dégg-dégg bu ñu am ci góor jigéen ak ñenn ñi dégg-dégg bi ñu am ci góor jigéen du woon benn. ñun lan la ñuy wax góor jigéen mooy góor gi nga xamante ne nii tey Euh, péngoo sa yax yi lan la ñu naan péngoo sa yax yi parce que góor dañuy bëgg nga dox doxuñu góor wax waxu waxuñu góor xool xoolu xooluñu góor mais góor bi nga xamante ni dem na yow yaa bëgg lèvre rose yow yaa bëgg sol lu génne say forme yow yaay jël sa baat travail ko ba sooy wax di ko lokk di wax ndànk di wax doucement yow yaay xool da ngaa war a léttu da nga war a bënn jaaro sooy wax di ragaju di taasu ñun kooku Sénégal duñ ko considéré comme comme góor dañu naan kii dafa góor jigéene wala kii dafa góor jigéen la wala bàyyil sa yëfu góor jigéen yi ñun Sénégal xanaa léegi la jamono changé sax ba lu mel ni formation professionnelle soo fa demee lu mel ni filière togg góor ñi dañuy togg léegi la jamono changé sax ba góor di dugg waañ di togg mais bu njëkk waañ ba sax jigéen du fa jaar ñun Sénégal am na xeet yoo xamante ni cin sax góor du ko yëkkati loolu mooy wane ne benn inacceptation bu am ci mbirum góor jigéen mais lan lañ doon wax góor jigéen. mooy donc koo xam ne day def yëfu jigéen waa loolu toléré wuñ ko senegal ñaata yoon la jigéen di am xewam jël góor ne ko teg ko ci digg xew ba ci digg géew ga mu naan bàjjen diw moo joxe diw tàntaay diw moo joxe diw lii mooy joxe diw alors que loolu mbirum jigéen la woon bi jamonooy baax dañu naan lan góor ña ca góor na jigéen ña ca jigéen ña su mariage amoon dañu naan ñun suñu defee suñu yëfu góor ba pare nañ bàyyi jigéen ñi daf seen mbirum jigéen li ci des mbirum jigéen la xanaa loolu lu nit gàtt gàtt gàtt xam-xam gàtt gàtt dégg dégg dégg nga ko daf nañ suñ yëfu góor lu ci des yëfu jigéen ñi la mais léegi suñ demee ba yëfu jigéen ñooñu góor ña ñëw di ko xëccoog jigéen ña ñooñu la ñu naan ñii dañoo jigéen ñi dañoo ñàkk fayda dañoo góor jigéen ñi te loolu lu ñu accepté la da gis ne kii dafa ñàkk fayda billaay góor ñi léegi ñoo dàq wax jigéen ñi billaay góor ñi léegi ñoo dàq taasu jigéen ñi billaay góor ñi léegi ñoo dàq ragaju jigéen ñi mais da koy wax nii donc wax bi ñu koy wax cela veut dire que accepté woo ko mais tamit ni nga koy waxee tamit du nekk wax bu ànd ak rigueur mooy wane ne am nga ci benn tolérance donc le sénégalais lambda ou le sénégalais tout court bu njëkk góor jigéen bu mu xamoon mooy góor bi nga xamante ne nii day jigéen jigéenlu wala day def mbirum jigéen wala yaramam dafa jigéene góor jigéen bu mu xamoon wax garçon manqué mooy góor jigéen bi nga xamante ne nii lenn nii jigéen nekkul ci moom. parce que ci suñu société traditionnelle ci suñu culture dañu naan jigéen dangay ngay dox ndànk wax ndànk dañu naan jigéen ak loo munti doon da ngay nangoo nekk ci ginnaaw góor góor. nekk sa kilifa mais loolu ñun dañ ko accepter dañ ko nangu fii jigéen ñi buy génn di rey làmmiñ di wax yëpp soo paree am nga góor goo xam ne mooy sa kilifa ndax jigéen bés bi ngay juddu ba bés bi ñu lay dugal ci bàmmeel dangay nekk ci kilifteef ndax loolu suñ société moo ko accepté da ngeen a bëgg a wax mbirum góor jigéen rek déglu leen bu baax lu tax ma ne suñu société moo ko accepté jigéen soo juddoo sa yaay sa baay nu ñu lay protégé bokkut ak nu ñuy protégé góor la preuve góor su xasee am deux ans trois ans rek xale yu góor yi suñuy dem dañ koy fopp wala ñu tingom ko wala du moins Kaolack bi ma nekk su suñuy football yóbbu ko suñuy naani ataaw yóbbu ko mais su nekkee nit ki jigéen la bébé bi jigéen la deux ans trois ans yow yaa koy toppatoo yow yaay ji koo koy jox danga koy xam ci kër gi lay toog du génn di doxinu góor gi di doxee. am na explication mun nañ ne parce que jigéen moo gën a fragile loo mën a def jigéen mënoo kaa def ci góor su ngeen demee ba weesu foofu di am douze treize ans ku jigéen ki dañ koy commencé naan nañ ko teg ci penc mi jàng nañ ko teg ci digg kër gi jàngal ko liggéeyu jigéen na jàng togg na jàng fóot na jàng raxas na jàng nu muy woddoo sër na jàng nu muy waxee na jàng xers na jàng nu muy toogee ku góor ki boobu temps su jàngiwul école wala mu jàngi alxuraan mu ngi ci biti di football di def lépp te dañuy dem ba naan borom càmmeñ du të pourtant dañu ne borom jigéen du të dañu naan borom càmmeñ du të kon nga xam ne société sénégalaise accepté na ne jigéen loo munti doon doon doon góor mooy sa kilifteef mais soo demee ba war a am jëkkër sa bàyyi su la tegee ci ci géew lu mu lay wax bés na ki tey samay responsabilité dañ nañ ci yow mais ni ma la yaree ci ngor ci jom fexeel ba yóbbu ko fa olof njaay na la jigéen loo mun munti doon sa daraja bàyyi ko sa kër bàyyi sooy dem sëy dañ la naan yow sa daraja bàyyi ko sa kër bàyyi sattaar jël ko jaay ko sa rakk bi toog ci biir euh, kër baayam di wuti jëkkër te amagu ko mooy lan mooy sa jëkkër bul ko jaay taar bul ko jaay diplôme bul ko jaay daraja bu ko jaay tur loo ko war a jaay rek mooy déggal ko topp ci ndigalam daf nañ ko wala dafuñ ko beneen mbir la daf nañ ko wala dafuñ ko beneen mbir la mais société sénégalaise loolu la accepté moo tax dañu naan jigéen soo buggee jur mbaxana da ngay nangoo doon dàll mais duñu wax góor soo buggee jur mbaxana da ngay nangoo doon dàll dañuy tëj jigéen ne la yaa ngi dugg ci néegi sëy yaa ngi dugg ci buntu muñ muñal maslaayal jéllaleel gàttal làmmiñ gàttal tànk dinañ ko def wala duñ ko def société sénégalaise loolu la ñuy waxtaanee pourtant jigéen ñi peut-être gàttuñu tànk peut-être gàttuñu làmmiñ à commencer par man damay wax samay soxla léegi accepté bi ñu ko accepté mais tamit dañoo toléré leneen lan mooy toléré leneen dañoo toléré les droits de la femme toléré les droits de la femme moo tax ñu indi parité ne fu benn góor nekk dafa benn jigéen nekk toléré les droits de la femme moo tax poste yoo xamante ni dañ koy jox jigéen mu yilif ay góor kese tolérer les droits de la femme moo tax ñu ne jigéen bi nga xamante ne nii bëggul am wujju mën naa wax jëkkëram signeel ma monogamie tolérer les droits de la femme mooy tolérer mbirum jigéen mooy tax góor takk la ba pare ne ah ma chérie bàyyil ma togg wala nañ dem restaurant pourtant loolu yëpp loo xamante ne nii suñu société daf ko xam mais pourtant dañ ko tolérer maanaam soo ko defee duñ la ci xas duñ la ci xànc mais pourtant liñ accepté nag mooy. jigéen ñu muur la nga sëyi déggal sa jëkkër toog ci wetam su la waxee waaw nga ne ko waaw la su la nee xonq na nga ne ko xonk na su la nee ñuul na nga ne ko ñuul na kukku di ko toggal di ko yëkkal loolu mooy li nga xam ne société bi daf ko accepté soo ko defee ñëpp a cay kontaan li ñu toléré nag mooy jigéen bu ne way man dañ maa dugal école dugal sama jëkkër école dafa war a liggéey teral ay waajuram damaa war a liggéey teral samay waajur li ñu toléré mooy jigéen bi nga xamante ne ni dama am sama réunion politique dama war a bokk ci kii instance politique yi damay dem di réunion du ma nangu benn góor di ko aaye li ñu toléré mooy jigéen yilif góor ci administration bi lu ñu toléré lu ñu toléré lu ñu toléré léegi le président Ousmane Sonko il a bien pesé sa ses mots quand il dit l'homosexualité est tolérée et ne n'est pas parce que toléré góor jigéen ci suñu dégg-déggin góor jigéen parce que réew mu nekk am na baat boo xam ne noo koy déggee am na mbir moo xam ne noo koy gisee par exemple tey man su may def technique de communication damay naan à mes élèves sooy wax ak nit Euh, di def discours il faut vraiment regarder la personne droit dans les yeux à la limite même il faut il faut il faut dévorer la personne du regard loolu dama koy def ci technique de communication kon ce qui veut dire que toléré nañ ko mais est-ce que accepté nañ ko Sénégal sooy wax sa kilifa sooy wax keneen dañ la naan su nit di wax ak yow da nga ne jàkk sa bët jigéen da ngay am kersa nit da ngay am kersa bàyyi sa bët yi nga ne jàkk moo tax toujours y a une différence entre tolérer et accepter le président Ousmane Sonko mu ne toléré nañ ko mais accepté wuñ ko donc ñun suñu dégg-dégg ci góor jigéen c'est pour dire quoi avant may fàtte par rapport au regard tey la société française sa papa suy wax ak yow sa yaay suy wax ak yow nga xool ko droit dans les yeux du nekk manque de respect parce que seen culture la li ngay def fii ñu yëkkati ko def ko lu baax soo ko defee fee ñu yëkkati ko def ko lu bon ci société sénégalaise ci soci ci société occidentale autant pour moi nit di wax ak yow nga ne ko jàkk xool ko les yeux dans les yeux signe d'affirmation la mais dans la société sénégalaise sa baay sa jëkkër sa mag sa sëriñ koo xam ne am na kilifteef ci yow suy wax ak yow nga ne ko jàkk ci bët siiñu ñàkk kersa la siiñu reewaande la kon ñaari réew ñoo xam ne bokkuñu culture bokkuñu gisin gis-gis mënuñu leen naa ne foog ngeen am même vision ci benn affaire góor jigéen ñun ni ko jàppee woon ba toléré ko muy góor buy def yëfu jigéen. te loolu toleere nañ ko ku mu neex toléré nañ ko ku mu naqari toléré nañ ko ndax nit day am sa xew ñaata jigéen ñoo mën a nekk géew waxal la ba mu baax joxal la say teraanga nga nekk fu ñukk dem jël góor. góor guy lamsal góor guy ragaju góor guy sànni loxo dàq ko foofu jigéen est-ce que daa tax kooku ni amul xarit est-ce que daa tax kooku amul àndandoo est-ce que daa tax est-ce que daa tax ce que daa tax pourtant mu ngi am xarit mu ngi am àndandoo mu ngi dem ci télé yi mu ngi dem ci lépp te pourtant suy wax ma ngay sànni bët ja ma ngay sànni loxo yi mais góor dëgg du def loolu. ñun ñooñu dañ leen di naan ñii góor jigéen la ñii dañuy góor jigéen góor jigéen lu ñii dañoo jigéene ñii dañoo def nii mais toléré nañ ko dinañ wax ak ñoom bien vrai que nag yow mi comme que da nga ko toléré te accepté woo ko sa doom bu góor suy dox di sànni loxo nga ne ko xee say jigéen yi na rak doom bu góor su jegee sa waañ bi nga ne ko xee ci biti jigéen ñi ci jigéen ñu góor ñi ci góor ñi ñàkk kaa toléré moo tax ci lislaam sax góor ak jigéen suñ amee juróom-ñaari at dañ leen di tàkkale fu ñuy nekk kon ñun tolère nañ homosexualité ci suñu déggin na leer ci suñu déggin su nekkee ni suñu déggin ci homosexualité mooy déggin ni nit koo xamante ne nii dafa nekk góor ba pare di jigéen jigéen lu loolu fii lañ ko toléré ba mu saf ñu toléré ko dama ñeer virtuelle maanaam ci réseaux sociaux yi da ngay gis bëgguma tooñ moo tax du ma tudd ay tur da gis ñoo xam ne dañ leen xàmmee ni ñii ay góor jigéen luñ wax nañ leen ko ba mu leer naa ñu te ñoom nëbbuñ ci dara mais tey suñu doon def laayu ay sénégalais yuy dugg foofu naan billaay diw moo may rey bilaay diw tontu rek la mun pourtant ñooñu dañu bañ góor jigéen mais toléré bi ñu ko toléré moo tax mun nañ ci ñoom déglu te loo loo sip loo accepté wul ko sip doo ko déglu du la neex du la reetaanloo kon nañu arrêté di def manipulation parce que fii manipulation du fi dox ñu ne waat le président Ousmane Sonko. ci mbirum góor jigéen bi jëlu ci un discours franc jëlu ci benn discours bu dëgër bu leer nañ discours dafa mën a leer gën a leer ba nit suy wax mun nga wax directement mun nga wax indirectement mais mun nga wax ci comparaison lu mu ko wax def ko ne yéen France la polygamie vous pose problème accepté woo leen ko nangu woo leen ko. mu ne ko man sax xam naa ne ba bu may débarquer France damay ànd ak sama ñaari jabar mais France nanguwuñ polygamie accepté wuñ polygamie mais toléré nañ ko nan lañ ko toléré maanaam biir France doo fa toog ne man la Ibrahima je suis polygame loolu accepté wuñ ko mais nga nekk sa polygame. waxoo kenn sonnaloo kenn dérangé wu leen nga nekk un président polygame teewul nga am ak ñoom yow relation nga nekk une personne polygame teewul ñu xaritoog yow mais par contre dans leur territoire français foofu doo assumer ne man polygame laa ñun tamit Sénégal fii nga nekk góor jigéen di làqatu sa néeg duñ la wër di la làqar ci mais taxaw télé ne way je m'appelle tel mais je suis homosexuel je défends les homosexuels loolu lañ ko accepté ban télé ko sañ a def ñu tàll ban télé moo sañ a invité nit mu ñëw sans langue de bois ne je m'appelle tel je suis lesbienne wala je suis homosexuelle te taaluñu télé bi dinañ taal télé bi muy première dégât di mun nañ tëj télé bi muy deuxième dégât mu waa Corée dinañ la bind muy troisième dégât conséquence xaw ma mais pourtant télé mun na invité koo xam ne day wax di taasu di fecc di def lii di def lii mais ñun góoru Sénégal dëgg xam xamee wuñ ko woon loolu nañu waxante dëgg te yàlla tax soo seetloo góor goo xam ne ca village bi lañ ko yaree muy góor dëgg maam yàlla mu ñu naan góor dëgg góor maam yàlla day solu sol yaatu du sol dara loo xam ne day génn formam pantalon yu sew yi yëpp ci ville yi la xewee dañuy sol sa caay wala soo sol sa saay caay nga sol sa pantalon bu yaatu sooy takk benn jaaro ngay takk montre ngay takk diw sax amaan na doo ci jaar sa bopp bi su naree am karaw nga wat ko wala nga rasta da fi fu baay faal waxtaan ca penc ma ngay dem yaa góor na yéenay waxtaan xanaa ñàkk ñàkk a nangu ñàkk a nangu ñàkk a accepté dafa dem a dem a ba tey dama leen di jox benn exemple ba touché sax religion bi. ndax julli jàkka julli juma tey wala julli bésu korité wala julli bésu tabaski da ngay gis ne góor ñi rek ñoo am habitude di dem rarement ngay gis jigéen ñuy dem suñuy takk sëy pourtant dañuy naan ku jigéen ki dafa war a toog ku góor ki toog ñu uh, xutba ku góor ki di dégg ku jigéen ki di dégg mais soo seetloo xutba ba souvent ku jigéen ko du ko fekkee tellement que dañoo bëgg a def séparation góor ña nañ yem ca góor ña jigéen ña yem ci jigéen ñi lii mooy culture sénégalaise. acceptation bi ñu ko accepté nag mooy ñun ñii jigéen ñi te ci jigéen ñi ñoo ko gën a accepté ko góor ñi. parce que c' est très rare nag nañ waxante dëgg nag nañ taxoon suñu bët yi waxante dëgg c' est très gis langu góor ñu jël ab seen moromu góor teg ko muy taasoo ak ragaju neexu leen safu leen. su doon wax ba daaw géej kenn du yëkkati ko xool soo gis ñoo xam ne sax dañuy jóg aw seen yoon dem mais ñun jigéen ñi ñun ñoo war a xoolaat suñu bopp. ñun moo war a seetaat suñu bopp ñun ñooy organiser xew bàyyi fi sa moroomu jigéen boo xam ne moo mën a taas moo war a ragaju nga bàyyi ko fa dem jël góor lëng maam yàlla mu nekk fay fecc di lëmbal di ragaju di xaste di wax lu kenn xamul ngeen koy tàccu di yëkkati seen xaalis di ko may. te kon ko jigéen ñooñu ci société bi lañ dëkk jigéen ñooñu am nañ ca tolérance nañ waxante dëgg góor jigéen ñi ñan ñoo leen gën a teral ñi nekk góor jigéen mañ xam ko ñan ñoo leen gën a teral duñ ay extraterrestre duñ chinois duñ leen jigéen ñi ñoo leen teral naan sama géer bi sama lii sama laa ñun ñoo war a xoolaat suñu bopp mais pire encore pire encore au-delà de la tolérance ñi nga xamante ne dañu tuddee seen bopp féministe dama leen di wax ki leen waxaat lu ñor ñu xeex lu ñorul ñu xeex est-ce que da leen di gis ñu toog ni oui moi Dado Kamara euh, avec le sobriquet La Révoltée euh, euh, je me je me suis féministe mais je suis foncièrement contre l'homosexualité je trouve que l'homosexualité c'est un acte contre nature une chose à combattre les homosexuels ne doivent même pas être considérés comme des humains ils ne sont même pas de la merde ils sont de la sous-merde waaw discours boobu est-ce que les féministes dañuy toog di ko def est-ce que ñi nga xamante ne dañuy prétendre ne dañuy défendre les droits de l'homme est-ce que dañuy oser def ko man nag personne bu libre laa kenn du ma kenn du ma kenn du ma menacer visa. kenn du ma menacé tur kenn du ma menacé dara parce que tey jii soo bëggee nekk féministe boo xam ne dañuy reconnaître sur le plan mondial ngay mën a voyager def lii foog yenn yi ngay dem avec euh, douceur man du ma ko def man je me dis toujours te su ma koy wax toujours ci france laa koy wax je m'appelle Dado Camara connu sous le sobriquet La Révoltée je suis foncièrement contre l'homosexualité pour moi l'homosexualité c'est un acte contre nature à combattre par toutes mu leer nañ bu ma benn taxaw nag naan danga may tontu ko wax da nga génn à visage découvert nga def ni ne man dama bañ mbirum góor jigéen bu ma laal bu ma jege nañ ko xeex duñu sax ay nit ay merde lañu ay sous merde lañu loolu mooy tontu bi ngir yàlla seen làmmiñ rëy nañ rëy na euh, féministes yi ci ñoom seen i làmmiñ rëy nañ réew nañ xamadi nañ mais kuy tontu fais ce que j'ai fait génn nga ne moi je m'appelle Dado Camara je suis professeur je suis foncièrement contre l'homosexualité euh, je voudrais qu'on combatte les homosexuels ils ne doivent pas avoir la paix dans ce pays bul ragal ko la ci taxé de homophobe bi bul angu wante déedéet complexe bu sénégalais yi am mooy pour ñoom soo taxawee wax sa position ferme sur l'homosexualité ah déedéet tu es une personne fermée d'esprit mais loolu tubaab bi ñoom ñoo dugal ci ñun ne kuy xeex homosexualité c'est que tu es une personne intolérante tu es tu es fermé d'esprit mais ñoom lu ñuy xeexee euh, la polygamie ni ñuy xeexee le voile islamique est que dafa tax ñu ne leen vous êtes des personnes petites d'esprit mais si l'homosexualité est un choix la polygamie aussi demeure un choix su nekkee ne man nañ may doomu aadama mu ne man jigéen laa mais yëguma mbëggeel yëguma cofee lu dul ci sama moromu jigéen France développé ko nangu ko accepté ko mais lan moo tee nga ne man góor laa mais ñaari jabar moo ma mën a doy ñaari jabar yi ngay takk nga ne ko yow yaay sama première femme mais su ma la takkee dinaa jël keneen teg ko sa kaw mu d'accord sa ñaareel bi ba nga koy takk nga ne ko am naa première dame ba pare dama lay takk nga topp ci ginnaawam mu d'accord ko ay mbokkam yëg ko société bi yëg ko ñaar ñi jigéen ñi yëg ko yow nga yëg ko nëbboo ci kenn léegi loolu est-ce que du liberté faut pas vouloir le la crémière la France mënut a toog naan oui la liberté oui il faut c'est c'est une question de droit humain c'est une question de droits humains mais c'est aussi une question de droits humains pour une femme de dire moi je ne veux même pas être la première femme je veux être la deuxième femme je veux être la troisième femme mais c'est une question aussi de droit en tant qu'homme de dire que j'ai la possibilité sexuelle j'ai la possibilité financière j'ai la possibilité psychologique de tenir deux femmes et je voudrais avoir deux femmes li ci yoonu doomu aadama moo tax président Ousmane Sonko lu mu wax dégg dégg la laaj moo tax mu aborder polygamie won Mélenchon ne ko ni ngeen taxawee parce que c'est votre désir de vivre en commun avec des faits avec des règles avec une réglementation qui vous interdise d'accepter la polygamie nous aussi par rapport à nos valeurs. Que ces valeurs soient religieuses, culturelles ou sociales, nous ne voulons pas l'homosexualité. Nous n'acceptons pas l'homosexualité. Par contre, ceci est toléré. lu ngeen bëggoon mu ne déedéet Sénégal dañoo bañ góor jigéen nanguwuñ ci dara toléré wuñ ko mais président Ousmane Sonko rus naa génn ci gémmi ñoom boobu lu dul dëgg lan moo tax mu nekk xaritu xale yi soppee mag ñi parce que suy wax day wax yi dëgg di wax luy naqari nit di wax liy neex nit mais di wax liy dëgg te lan moo wane ne homosexualité toléré nañ ko fii Sénégal ba pare ñuy joxe exemple euh, l'homosexuel bu ñu bu ñu sulli woon lakk ko mais ku ñu woon lakk ko Sénégalais yëpp dañoo jóg ne wax dëgg yàlla li taxoon sax ñu ne nañ ko criminaliser xool ko mais jël nit sulli ko lakk ko jaaduwul état parce que daf leen a toléré moo tax ñan lañ tëj su nekkoon état toléré wu leen soo leen rayee daggati leen seen yoon nekku ca mais état dafa am ñu jàpp tëj. lan mooy wane ne homosexualité accepté wuñ ko mais toléré nañ ko ban jigéen moo ñemee taxaw mun nañ la ko jiiñ kii lesbienne la kii ceci la kii cela la mais ban jigéen moo ñemee taxaw ne oui moi j'ai des orientations sexuelles différentes euh, des autres en tant que femme je suis intéressée par les femmes ban jigéen ñemewu ko def donc accepté wuñ ko mais fii ban jigéen moo ragal wat say bopp takkoo jaaro euh, sol pantalon Euh, jëngal lañ koy xaw ma sol say basket takki sa kii dem salle musculation am doole yëkkati sa baat jigéen ñëpp ñeme nañ ko parce que toléré nañ ko te pourtant loolu mooy jigéen buy góor góorlu fii ban góor moo ragal sol sa pain mu seere sa yaram euh, takk sa ñetti chaîne teglante ko bënn say takk takk say kii comment dirais-je takk say jaaro nopp lëtt sa karaw lijjanti sa lèvre rose dem def sa pédicure manicure soin de visage ba sa kanam mooy gën a belli kanamu jigéen sooy wax di lamsal di def nii di def des trucs euh, de femme pourtant da nga koy def du la tee am xarit du la tee dugg ci jàkka bés boo bëggee dugg ci jàkk da nga dindi rek sol sa grand bu soo demee ci jàkka dañ lay nangu du la tee gis nos chefs religieux kon toléré nañ ko léegi lan mooy problème bi léegi lan mooy cas te ba pare man dama yaakaar ne la pes soo rôle c'est pas d'être une opposition la presse dafa war a am benn rôle d'information d'alerte su nekkee ni nguur gi def na lii jaaduwul nga wax ne jaaduwul su nekkee def na lii baax na nga ne def na lii baax na ñu ne sax le journaliste le train qui arrive à l'heure ne l'intéresse pas waaye ba tey ma d'accord ci mais del xool loo xam ne jaaduwul nga doog a ne jaaduwul la ne jaaduwul rek parce que jaaduwul mais tey soo jëlee des journalistes comme ay Aïssatou Diop Fall Ahmed Ndoye ñooñu soo leen jëlee dañuy nekk des personne yoo xamante ne nii euh, débat bu ñu munti nekk même bu ñuy animé ñu invité ñu invité leen wala ñuy animé baax lan ngay gis ci ñoom que ñoom toujours de seen position day contrecarrer la position du président Ousmane Sonko day contrecarrer la position du président Diomaye Faye mais journaliste doo def parti pris journaliste xamul parti politique journaliste xamul lenn lu muy wax dooy wax fekk ni c'est son intime conviction bu mu ko gëstoo lii la ci gëm mais journaliste yoo xamante ne nii vraiment dañu ne way nous sommes des opposants mais nag yooyu journaliste yooyu patron de presse yooyu narkat toog leen parce que su nekkoon ne Sénégalais yi joxoon nañ leen nopp bu baax bi kon du ñu fal le président Ousmane Sonko kon du ñu fal le président Diomaye Faye mais Sénégalais yi ay ay dof lañ leen jàppee ay ñu wayadi lañ leen jàppee. discours président Ousmane Sonko bi ñu xam ne il a parlé du silence coupable de Macron il a parlé des bases françaises il a parlé des nouvelles relations qui doivent vraiment animer euh, animer. les pays entre la France le Sénégal l'Occident pour nga bañ kaa pour nga bañ kaa rafetlu pour nga bañ kaa nangu ñett ñi foog mu nekk ci yow foog nga nekk benn larme foog nga am le syndrome de Stockholm wala nga nekk benn benn kii benn jaam benn esclave man maa ne le président Ousmane Sonko discours am bu rëy bi mu def ci digg UCAD nga xam ne Afrique yëpp la waxal par la forme et par le fond par la forme xoolal lu mu solo solowul sax purement purement sénégalais mais dafa sol loo xamante ni ça symbolise l'Afrique ku ko gis nga xam ne africain moo sol mu wax ci waxu base française muy déjà benn liberté bu ñu war a am moom suñu sécurité bopp soxlawuñ kenn duñu ko gardeel mu wax war cee wax le silence coupable des Occidents oui il y a un silence coupable des Occidents. Quand un président dictateur euh, euh, à la solde de la France tue, emprisonne, ampute, exile, la France se tait. Et à un moment donné, il faut qu'il y un sauveur quand maintenant benn moment jot l'armée dit mais ça c'est impossible on ne peut pas laisser une personne boo xam ne les Africains les habitants de son pays ñoo boole seen doole jox ko ko pour mu jiite muy rey di tëj kenn mënalu ko dara kenn waxu ci nañ ko fi jële pour ñu amaat suñu jàmm boobaa France ak Occident yi tijji seen gémmiñ gu rëy naan wii la la prise du pouvoir doit passer par la démocratie mais pour que la prise du pouvoir passe par la démocratie il faut qu'il y ait un démocrate que su nekkee un président boo xam ne da ngay rey da ngay tëcc da ngay caricaturer da ngay exiler li war a tax or élection bu normal am yépp nga bafoué ko sa ministre de l'intérieur mooy organiser élection yi sa ministre ay say ministre say nit ñoo koy organiser sàcc élection yi xëy taxaw ne diw moo gagné génne armée génne police mais dans ces pays là il faut qu'il y un sauveur li ñu gënaloon mooy saay bu nit di falu falu par la voie des urnes mais am na des imbéciles yoo xam ne soo jumee ba teg leen pouvoir malheureusement soit yàlla dimbale la rey ko te même su ko sax doomam ñëw toog c'est le cas kii Tchad même su ko reyee sax doomam ñëw toog soit yàlla dimbale la rey ko soit dëkk ba jóg ne jàkk jàkkaarloog ñoom su violence jaree ñu def ko su reyante jaree ñu def ko parce que la violence en tant que balaa may dee ñu ne la violence elle à bannir est-ce que dëgg la kan moo ñu wax loolu mais une personne violente tey jii li ñu ne la violence est à bannir tey man su ma fekkoon nit ma xool ko dofuma jënd jàpp ma ne ko tal ma mbéj mu mbéj ma pourtant il est violent parce que mbéj violence la mais est-ce que cette violence est à bannir dëkku dóore dëkk fay dëkku dóore fayoo koy tas. suñu bëggee am réew yoo xam ne bépp président par les urnes la jaaree il faut que ñu teg ay président yu nite yu nekk ay doomu aadama la nekk doomu aadama ak am forme doomu aadama du benn mooy xam luy métti ci nit xam luy naqari ci nit mais fal des pseudo présidents yoo xamante ni ce sont des salauds des vauriens nekk ci nguur bi ñooy rey ñooy tëj ñooy exilé loolu pour lan la yow góor ak jigéen jur la kii góor ak jigéen jur ko ñu juree la Sénégal wala ñu juree Afrique du Sud wala ñu juree la Tchad wala ñu juree la beneen dëkk yéen ñeen bokk même droit nga jàpp ko di ko dóor di ko xas di ko tëj di ko exiler yemoo foofu suuf si nga xamante ne nii tey soo nee 17 mètres carrés laa am ci yooyu dootul yokk mais population bi day yokk ñu war a séddoo 17 mètres carrés dañuy gën di yokk mais 17 mètres carrés yi dootu yokk nga jël ko di ko jox say moom say àndandoo wala di ko jox euh, France France mi nga xam ne dafa fëriñ kulaayu suñu xel léegi nga ne nit ñi duñ ko xeex dañ koy xeex ba dugg boîte locale ak lu ñu jaral léegi nag des larmes des gens yi nga xamante ne ñu am le syndrome des Stockholm ñi nga xamante ne ay esclave lañ seen maam ci jaam la woon seen ndey ñu nekk jaam ñoom ñu ñoo nekk jaam ñoo ñoo nekk ci plateau yi di naan dañuy dañuy caricaturer le président Ousmane Sonko te tuuti ngeen ci. tuuti ngeen ci parce que amoo leen gëdd gi amoo leen dayo bi amoo leen vergogne bi amoo leen dignité bi amoo leen personnalité bi gis nga dañoo def taxawu suñu projet. yéen su leen Sénégalais yi loon kon est-ce que ñun cent de la population dinañ fal le président Diomaye te ku fal le président Diomaye le président Ousmane Sonko nga fal ndax président Ousmane Sonko moo joxoon Diomaye te boobu ba tey nag président Diomaye ñaawul ci dara boobu ba tey président Ousmane Sonko ñaawul ci dara parce que yéen lu bon ngeen xam. lu ngeen buggoon président Ousmane Sonko fu mu toog nga ne nga ne la wii man maa ko fal déedéet président Ousmane Sonko dafa effacé wu bàyyi ko mu doxal. bàyyi rakkam mu doxal président Diomaye xam ne man mii kat su ma nekkee fii mbirum yàlla nekk na ci mais ginnaaw loolu nit ku baax kii yaatu dënn kii di président Ousmane ko jàpp na ci mu jël ko def ko grand frère am loolu du bon bon loo seen xol yi yéen balaa ngeen di kontaan rek Sénégal di rayante su ko defee ngeen di teg seen i di teg seen i musique sénégalais yi bu ñuy dee yéen a ngi teg ci seen télé yi ay musique sénégalais yi bu ñu leen di tëj plus yéen a ngi teg ay ay musique di xàkkataay di teg gi ay ministre moo tax gis nga nekk jaam dara jaru ko soo nekkee jaam tamit ci penc mi nga toogoon jaay sa ngor ba nekk jaam ci penc moom ngay toogaatee ñëpp di la xoolee jaam te doo tekki tus ana alal yu ñu leen joxoon ana voyage yu ñu leen joxoon ana privilège yu ñu leen joxoon lu mu leen jëriñ tey man di je préfère su ma xëyee naan sama café Touba kese bu ma sax am nguru su heure yi añ jotee ma lekk sama ñànkatang def daf ci sama toq diwtiir wis ci sama kaane su reer jotee ma naan sama sombi te lu ma bëgg a wax am capacité wax ko te du ma wax ba pare doomu aadama joxoñ ma ne ma jaam nga du wax ba pare doomu aadama joxoñ ma ne ma larbin nga mais yéen vous êtes des larbins certains journalistes vous vous vous êtes des esclaves ay esclaves ngeen ay jaam ngeen tekki woo leen dara parce que ñàkk a tekki dara weesuwul nga dëkk ci dëkk juddoo fa sa ndey juddoo fa sa baay juddoo fa ñuy rey quatre-vingts sénégalais nga gëmm ci sa bët tey nga nekk fi naan oui yéen yéen a ñàkk jom. yéen a ñàkk jom ñaa ngi leen sénégalais yi daanu sénégalais yi ñoo leen wëccu ñoo leen féexlu benn sénégalais suñ ko rayoon wala ñaari senegal média yëpp booloo seen doole naan kii rey nañ ko nu ko police rayee wala nu ko gendarme bi rayee wala nu ko nu ko comment dirais-je les nervis bi ñu ko rayee jaaduwul di ko wax mu def tole kon boobaa Macky Sall dina arrêté soo gisoon Macky Sall am fitu nit ñi di dee faalewu leen du leen jaale benn xale bu nekk Maroc xaw ma dafa daanu woon ci teen xaw ma nu mu def mu bind di ko euh, di di di ko naqarlu Macron su boppam xawee métti wala bëñam xaw a métti sax wala mu am infection de gencive sax mu taxaw di ko méttitlu di ko tuité di ñu di ñu kekkantoo te nga xam ne Macky tekkiwutoon dara tekkiwutoon dara ci juddu tekkiwutoon dara ci am-am tekkiwutoon dara ci xam-xam lépp lu mu doon sénégalais yi ñoo ko ko teg su nekkee directeur Petrosen sénégalais ko ko teg. mu nekk premier ministre sénégalais ko ko teg mu nekk ministre de l' intérieur sénégalais ko ko teg mu nekk président assemblée nationale sénégalais ko ko teg mu nekk maire de Fatick mu nekk président la république sénégalais ko ko teg Macky Sall amul lu muy def lu jàkkaarloog sénégalais yi def leen noon moo tax dañu naan nit du bañ nit mais man dama bañ Macky Sall te dama koy assumer du nekk benn hypocrite parce que rey doomu aadama taxaw ne enquête du am. Macky Sall moom kese moo fa doon même ta xaw ma maatam taxaw ci otom bi dof-dof la du wokk boppam bi noonu ñuy dóor ay nitam xanaa man mii rek su ma romboon tey gis ñuy dóor xaalis su ma ci mënul dara sanaa ko ne soxna si baal ko wala mm, mm, euh, sama càmmeñ baalal ko nga romb nga ne yow yaay président de la république de tous les sénégalais yëg sa oto je me rappelle image boobu laa gën a bañee Macky Sall image boobu la jëppee Macky Sall mu naan nii du wax ko bopp su ngeen ko seetee ci internet da ngeen ko gis nervi yi parce que ay nervi laa leen mën a wax ñuy dóor ana président bi soxla garde du corps ñu jox la police jox la gendarmerie jox la tout ce qui est sécurité yéen journalistes yu tekkiwul dara boobu temps ngeen tëj seen gémmiñ yi gis ngeen bu leen ma saagaloo parce que bëgguma saaga li ma leen bëgg a wax xeeb ko ngeen tëj seen gémmiñ yi nangu woo leen kaa wone nangu woo leen cee wax nangu woo leen ci commentaire ba léegi na ngeen bëgg a fatt nit ñi yéen xanaa xamoo ne sénégalais yi ay jaam lañ leen jàppee ay descendant d'esclave lañ leen jàppee lii mooy dëgg beneen bi Macky Sall lu bon rek la doon def lu xaraam rek la doon def lu kenn xamul rek la doon def lu sénégalais yi jéppi séexlu ko rek la doon def tey su ma leen newoon nit mboqam nan lañ koy waxee ci joolaa soo nekkul joolaa doo ko xam su ma leen neewoon nit ni ñuy ni muy ñuy waxee nit mboqam ni ñu ko waxee ci bambara soo nekkul bambara doo ko xam wala nga dégg bambara su leen neewoon nit mboqam nan lañ koy waxee ci sara xoole soo nekkul sara xoole wala nga dégg sara xoole ko xam mais tey Sénégal wërngal këpp koo laaj nit ni ñuy euh, nit mboqam nañ koy waxee nga ne ko nedd ko ba dum Macky Sall indi fi affaire xeet benn tooñ xeetam waa pëlam la njëkk a tooñ waa mbokk pëlam la njëkk a tooñ que pël yi loo leen munti waxal <coughs> xam ne ay nit ñoo xamante ni dañuy jàng alxuraan ba mu fees jàll seen dënn pël bu jàngul alxuraan ak raar pël bu amul diine ak raar pël bu amut liggéey soit nga nekk sàmmkat di sàmm soit nga am say tool soit nga jàng xam-xam ba mokkal ko <coughs> excusez maa ngi sakkat <coughs> baal leen ma naan jàng alxuraan ba mu toog toog nit am soxlaam ñoo wax la nga ñaan ci yàlla pour mu faju mu yëkkati weccatam jox la ñun pël yi loolu lañ leen xamee woon di tooñanteeg ñoom soo gisee kenn nga ne waaye kii pël la rek mu ne déedéet waaye du pël waaye kii joolaa la kii séeréer la ñuy tooñante noonu ki sàll mu tekkiwul dara te du ko tekki ba àddinay tukki dafa foog ne am xaalis am kër am am am jet privé xaw ma am na ko xaw ma amu ko mooy tax nga tekki dara tekki dara moo tax mooy ngeen fi nga juddoo màggee fi nga ñemee fay dox te kenn du la joxoñ baaraamu tuuma Macky tekkiwul tus bon iñaan soxor iñati bi mu soxlaa mairie de fati dafa dem te séeréer yi ne leen yéenay sama mbokk kii nit ki moo foo ñu fal ko demul Fuuta demul Matam biñ ko falee ba pare mu indi nedd ko ba dum jël administration lëmb ethniciser ko soo duggee ci administration bi jàlloo si journaliste yi loolu la ñu waroon a taxaw dénoncé ko ñu lànk gëmm ci seen bët mais sénégalais mat lu ñu doon ni ñun kenn du ñu def loo nedd ko ba dum ñun du amul kenn ku ñuy sànni pël yi suñuy mbokk lañ joolaa yi suñuy mbokk lañ bambara yi suñuy mbokk lañ mun sénégalais lañ suñu amee lu ñu métti dañ koy defante entre sénégalais ba mu saf mais affaire xeet bëgguñu kaa dégg Macky Sall forcé ñu ne da ko badum jël alalam am ñu ci jënd su ko defee jël xeet benn xeet bëgg leen a en mal avec la population da ngeen ko mën da ko mën ñun xaritu pël la ñuy am waxtaan mun nañu d'accord ci kàddu mun nañu ñàkk d'accord mais li tax ñuy d'accord ci principe la lii tax ñu ñàkk d'accord ci principe la mais du mës di nekk ci problème mu xeet Macky Sall loolu la njëkk a yàqee réew mi loolu moo waroon a tax bëpp bindkat bëpp borom journal wax wax leen ci loolu. ma ne wax leen ci loolu tey muy joolaa muy saruxole muy leneen ak leneen ak leneen koo ci waxoon nan la ñuy waxee nedd ko baddum ci làkk boobu su nekkul làkk boobu wala dégg ko du ko mën a xam. yeneen xeet yëpp këpp ku ñu waxoon nit mbokkam. nan lañ koy waxee soo bokk ci làkk boobu doo ko xamante net da ko badum tey ñëpp a ko xam te Macky Sall la ko fi indi lu mu bon lu ne mu indi ko fi journaliste yi na patt pattaaral di wut seen xaalis di lijjanti seen i voyage di lijjanti seen i terrain da ngay gis ko tekkiwul dara bëgg am terrain Almadies te am terrain fii cin moo tax nag tabi géen a ko def fii la ñuy toog chaque jour seen jabar yi di xam ne xaalis bu ngeen joxee can ñi xaalis bu ngeen leen di joxee ay ganaar xaalis bu ngeen leen di yóbboo ay ay ay ay màkk ay fu nekk ñuy voyager ñun safuñu parce que da ngeen a sàcc fen jaay seen dignité jaay seen ngor fii la ñuy toog jàkkaarloog yéen bët seen doom yi ngeen ay Canada ay Suisse ay nekk ñu fay jàngee université woo université ñu wax fa fii la ñuy toog ne rek jërë li leen woon ne seen baay te du da leen a yóbbu Canada pour ngeen jàngi waxuma nag ñëpp am na ñoo xam ne seen papa yi nekkuñu ministre nekkuñu dara dañoo liggéey am seen xaalis mu lew leen ñu jël seen doom yóbbu Canada ku ko mën a am loolu nga bëgg ku ko amul it loolu nga bëgg waxuma ñooñu mais ñi nga xamante ne nii ci fen rambaaj nekk larbin nekk markatu lu may ñu ci loolu la ñu jël yóbbu seen doom yi ñooñu laay waxal gis nga ñooñu seen doom yi dinañuy toog duñ mën a tekki dara ci réew mi suñ jàngee ba pare ñëw fii la ñuy toog nañ ñu ne ko sa baay dafa fen dajale alal di jox la nga dem jàngi sa baay dafa seytaane jaay ngorom dajale alal di jox la nga jàngi kon def na ci yow jikko fenkat def na ci yow jikko naa fekk fii doo fi diriger seen doom ñu ngi foofu mais kontaanuñ ñemewu ñoo feeñ barki démb boo laa dégg doomu Idrissa sekk bi dañ ko jàpp pour euh, trafic international de drogue xaw ma nuñ ko waxee noonu man dama ko déggee dama ne man am na benn doomu Idrissa Seck moo gisoon il faut donner il faut voter pour mon père xaw ma pour lui permettre d' être président gis nga Macky lu ñu tegoon ñiy imaginer seetlu woo leen ces dernières années alal yi naan dafa dee parce que dafa am overdose euh, dañu nekkoon appartement dañu defoon nii dañu defoon naa ce qui veut dire que Macky Sall loolu la mayoon ay nitam pour mu mën a am ay jaam yu koy fompal tànkam pour mu munoon am ay jaam yu ko naan wii wii wii daf leen jël. ne leen daf leen lu leen neex dóor leen Sénégal yi xas leen Sénégal yi matt leen Sénégal yi gajj leen Sénégal yi sama nga ña nekku ci kenn du leen tëj mais nag par contre da ma raatame la di ma wëy ngeen ñàkk jom nangu ko Mariama Sarr doomam te du fi defoon choc xaw ma da doon dawal sans permis xaw lan la mujjee tous Idrissa Seck mii ñu ne jàpp nañ doomam man ne du ma ne il coupable parce que man je crois fermement à la présomption d'innocence mais tey su nekkoon ne Macky Sall dafa nekk ca kaw lañ koy liggéeyantee presse bi sax duñ ko wax léegi presse bu ñàkk jom boobu ñoom ñooy taxaw bëgg ne ñoom ñooy titre la ñuy gëm ci président Ousmane Sonko presse bu ñàkk fulla boobu àndal tey yow lañ àndal ëllëg li nga wax noonu la ni nga ko waxee noonu la manqué ëppul tu as bien raison de dire que polygamie accepté wuñ ko France parce que seen culture la te ñun kon mun nañu nangu France accepter homosexualité te ñun dañ ko accepter par contre euh, s'il s'agit de tolérance toléré nañ ko tu as bien raison de dire que ni euh, existe na Sénégal parce que existe na moo tax ñu tuddee ko góor jigéen euh, kuy wax langage courant tuddee ko puuskatu pop kuy wax langage familier tuddee ko borom ñaari tur yi kuy wax langage soutenu ay euthanasie yi nga xamante ne ni existé wul euh, ci suñ ñun soo waxoon wax ko nit ñi duñ xam ban baat lañ koy waxal mun nañ ko comprendre expliquer la ko ba nga comprendre ko mais duñ jël baat rek teg ko ci ñoom kon maa ngi leen di gërëm di leen sant yéen journalistes yi wuti leen jom jom moom ñàkk ngeen ko ba pare mais nag nit soo xasee ba nekk l'armée deretu jaam nekk fii deretu euh, xaw ma buuju du buuju maan sax la ni ñu koy waxee sax fàtte naa la mu mooy kuy topp ci bit rek pour mu lay jox nii du buuju mande bugguma tooñ buuju mande sax tur bi laay fàtte du buuju mande wayaam tur ba laa fàtte de waaye du ngeen ci dimbale cogg dereeti cogg su nekkee ci yéen deretu jaam nekk ci yéen nii rek ngeen mën a waxee ñi seen baay yi nekkoon góor doon xeex seen maam yi nekkoon góor doon xeex ñoo fi jur surtout góor yi ñuy xeex ñi nga xamante ne seen juróom-ñaari maam yëpp ay jaam lañ woon ñoo doon jaay nit ñu ñuul ñi nasaraan yi ba tey ñoo fi nekk jaam bëgg fee nekk poson mais poson boobu ñun ñoo koy duliyee ba dootul ba mu inoffensif bu njëkk seeni maam yéen dañoo nekkoon jaam am benn degré boo xamante ne nii di fen di kàccal gor yi ba gor yooyu yëpp ñu lor leen léegi nag boobu temps maamu fenkat yi ñoo ëppoon doole parce que ñoom lañ gënoon a déglu réseaux sociaux amutoon télé yu bëri amutoon ñu déglu maamu fenkat yi ba ñu mokkal toroxal waa dëgg toroxal waa ngor mooy comme ñoom Mamadou Dia soo demee fële euh, Thomas Sankara dëkk boo dem rek ak kum kum fa nekkee wante léegi nag sëtu gor yi ñoo daax seen làmmiñ ba mu saf sàpp jàkkaarloog sëtu jaam yi maam mënut a dóor maam mënut a toroxal maam sët nanguwaat ñu toroxal ko maamu fenkat yi ñoo toroxaloon maamu waxkatu dëgg yi ci fen ci fen euh, sos wax lu dul dëgg ñeme yàlla bëgg alal léegi ngeen parewaat fi ngeen ne léegi sëtu fenkat yi dañuy ñëw toroxalaat sëtu waxkatu dëgg yi du am tey du am ëllëg allez vous faire foutre du am te leen di war ne du am mooy fen ngeen sos ngeen yàq ngeen der xataraayu ngeen def ngeen lu nekk bind ngeen fen taxaw ngeen télé fen taxaw ngeen rajo fen organiser ngeen conférence de presse fen lu nekk fenal ngeen ko góor yi malgré tout ça sénégalais yi ne allez vous faire foutre on va voter à cinquante quatre pour cent moo tax ñu bëri ñemeetu ñoo feeñ télé ñu bëri log nañ log nañ Sénégal noppi ñu ne leen allez vous faire foutre on va voter a cinquante pour cent dégg naa sa kenn ku naan waaw parce que xam nga euh, projet PASTEF bi 2004 PASTEF 2014 la juddu 2014 ba 2024. ça fait combien daane kon xale yi PASTEF rek lañ xam déedéet PASTEF dafa am magu daara dafa am doomu daara am magu PASTEF am jigéenu PASTEF kenn mun a manipuler toute la masse. sëtu waxkatu dëgg yi ñoo jàkkaarloog sëtu fenkat yi ne leen seen maam dañoo mënoon a fen ba pare boole kaak rattaxle rëy làmmiñ mën a wax ba sànq suñuy maam mais revanche bi fii la 2024 lay commencé sëtu waxkatu dëgg yi sëtu Mamadou Dia yi sëtu Alburi Njaay yi sëtu Lat Joor Ngoone Latiir Joob yi sëtu Thomas Sankara yi ñoo jàkkaarloog sëtu fenkat yi sëtu jaam yi sëtu naafekk yi fas yéene kaa dofante génn ba tëral leen ba tëral leen te du ngeen mun tus dëkk bi démocratie la am allez vous faire foutre donc encore une fois maa ngi leen di nuyu di leen ziar yéen ñëpp di ñaanaat ci yéen képp koo xamante ni déglu nga vidéo bi dama safe dama soppe euh, sama lien YouTube def naa ko fa ngeen dem abonné non seulement abonné ba pare mais uniquement pour jàppale waat ma wax ko say mbokk wax ko say xarit ñu abonné damaa bëgg am des abonnements massifs su ko defee mu mën a def mes vidéos sur YouTube je compte sur vous allez